Ibrahima benn askanu tera baayu Ibraham. mooy lii tera mooy baayu Ibraham ak naxor ak aran aran mooy baayu lóot gannaaw loolu aran faatu na lu jiitu faatuk baayam tera ca réew ma mu juddoo di ur dëkku kaldeen ña ak naxor jël nañu ay soxna soxnas ibraam tudd sara yi soxnas Naxor di Milka Milka moomu moom ak rakkam ju jigéen Yiska aranay seen baay sara yi moomu mësuloon a am doom te it mënu ko woon a am mu am bés Tera ànd ak doomam ibraam ak sëtam Lóot mi aran di baayam ak Sarayi soxnas Ibrahim ñu bokk jóge Ur gu kaldeen ña jëm réewu kanaan ba ñu demee ba karan daldi fay sanc tera dund na ñaar téeméeri at ak juróom door a génn àddina ñu denc ko karan saar yàlla sant na ibraam mu gàddaay amoon na bés aji sax ji wax ibraam ne ko dëddul sa réew dëddu say bokk ak sa kër baay te ñëw ci réew mi ma lay won ma def la ngay cosaanal xeet wu yaa barkeel la màggal sa tur ngay buntu barke ku la ñaanal barke ma barkeel ku la moolu it ma alak te xeeti àddina sépp xalataasu ci sa barke noonu Ibrahim dem naka ko aji sax ji waxe woon Lóot ca ba Ibrahim di jóge Karan booba am na juróom ñaar fukki at ak juróom ibraam ànd ak soxnaam sarayi ak loot mi muy baay bu ndaw ci moom mu yóbbaale nag alal ja mu dajale jépp ak jaam ya mu jënde karan ñu jóge fa jublu réewu kanaan ba ñu agsee kanaan ibraam dafa jàll ca biir réew ma ba àgg béréb bu sell ba féete ak sisem ca garab gu mag ga ñuy woye more booba fekk na waa a nga woon ca réew ma naka noonu aji sax ji feeñu ibraam ne ko ñi soqi ko ci yow laay jox réew mii ibraam nag daldi tabaxal aji sax ji ko feeñu ab saraxalukaay gannaaw loolu mu jóge fa jëm tund wi féete betel penku samp fa xaymaam betel féete ko sow ay féete ko penku foofa itam Ibrahim tabaxal na fa aji sax ji saraxalukaay tudd fa aji sax ji wormaal ko Ibrahim bàyyi kooti fa aw jublu àllu negew Ibrahim dem na réewu Misra ca jamono jooja xiif a amoon ca réew ma ba tax Ibrahim dem réewu Misra toogi fa ndax xiif bu metti la woon naka lay jub Misra daldi na soxnaam Sarayi déglu ma xam naa ne ku rafet nga bu la waa misra gisee dina ñu ne sama soxna nga te dinañu ma rey nga des kon nag ngalla waxal ne sama jigéen nga ba tax ma am jàmm su ko defee des na ma bàyyi ma dund te di la ko gërëme ba Ibrahim àggee misra waa misra gis ne jigéen ji mu àndal rafet na lool jaraafi na itam gis ko di ko kañ ca firawna ndax taar ba ñu daldi ko yóbbu ca kër firawna firawna nag toppatoo ibraam bu baax ndax moom ñu may ko ay gàtt ak ay nag ay mbaam yu góor ak ay jaam yu góor ak yu jigéen ak ay mbaam yu jigéen ak i giléem waaye aji sax ji wàcce ca firaw na ak waa këram jàngoro yu metti ndax sara yi soxnay ibraam noonu na woolu Ibrahim ne ko li nga ma def nag lu tax waxoo ma ne kii sa soxna la lu tax nga ne sa jigéen la ba tax ma jël ko bëgg koo def sama jabar ay ca sa jabar a ngoog fabal ne mot naka la na wax loolu ba noppi daldi sant ay dagam ñu génne Ibrahim réew ma moom ak soxnaam ak alalam jépp saar fukk Ibrahim ak Lot taxalikoo nañu bi loolu amee Ibrahim dafa jóge Misra moom ak soxnaam yóbbaale alalam jépp daldi dem ca àllu negew Lot topp ca Ibrahim nag amoon alal ju bare diggante jur xaalis ak wurus gannaaw loolu mu awati yoonam jóge àllu negew jëm dëkk ba ñu naa Betel dem ba àgg ca béréb ba mu jëkkoon a samp xaymaam ci diggante betel ak ayi foofa it tabaxoon na fa saraxalukaay noonu ibraam tudd fa aji sax ji wormaal ko waaye lóot mi mu àndal moom it yor jur gu gudd ak gu gàtt ak i xayma ba tax xajatuñu ca réew ma ndax seen alal dafa bare ba mënatuñu faa bokk dëkk loolu tax sàmmi ibraam ak sàmmi lóot di jote rax ci dolli kananeen ñi ak periseen ñi ña nga woon ca réew ma ba loolu amee Ibrahima dane lóot waay waay bu xuloo am sama diggante ak yow mbaa say sàmm ak samay sàmm xanaa du ñuy bokk nag xanaa àll bi newul yàmbala ngay gis nan teqali kay boo demee càmmoñ ma dem ndijoor boo demee ndijoor ma dem càmmoñ ba mu waxee ba noppi Lóot dafa xool gis joor gi wër dexu yu daan gépp màndi ndox ndax laata aji sax ji tas dëkk yu ñuy wax Sodom ak Gomor àll bi jëm sawar dafa naatoon ni réew Misra naate ba faf mel ni toolu aji sax ja ba mu ko defee Lóot tànn jooru yu daan gépp daldi toxu jëm penku noonu lañu teqalikoo ibraam dëkki réewu kanaan loot sànce dëkk ya ca jooru yurdaan daldi toxal xaymaam samp ko sodom waaye waa sodom ñu bon lañu woon te mën a mooy aji sax ji lool digéeb aji sax ja ak ibraam gannaaw ba loot teqalikook ibraam aji sax ji wax na ibraam ne ko téenal foofu nga taxaw te seenu bëj gànnaar ak bëj saalum ak penkook sow ndaxte réew mi ngay gis mépp yow laa koy may ba faw yaak ñi askanoo ci yow dinaa leen yokk ba ñu toll ni feppi suuf ba feppi suuf gën a neex a wàññi sa askan jógal wër réew mi mépp ba mu daj ndax yow laa koy may noonu Ibrahim sempi xaymaam ñëw dal Ebron ca garab yu mag ya ca toolu Mamre daldi fay tabaxal aji sax ji saraxalukaay saar fukk ak ñeent ibraam ca jamonoy am rafel buuru sineyaar ak ariyok buuru elasaar kedorlamer buuru elam ak tideyal buuru goyim ànd nañu dal ci kaw ñoom bera buuru sodom ak birsa buuru gomor ak sineyab buuru adma ak semeber buuru seboyim ak it buuru dëkk bu ñuy wax bela mooy sowar ba tey ñooñoo booloo woon ca xuru sidim mooy géeju xorom gi léegi fekk na diiru fukki at ak ñaar kedoor lamer moo leen yilifoon waaye ca fukkeelu at ma ak ñett ñu daldi fippu noonu ca déwén sa ak buur ya faroon ak moom dem dàq refaye ña ca asterot karnayim ak suseen ña ca am ak emeen ña ca jooru kirsatayim ak orien ña ca seen tund wa ñuy wax seyir da leen dàq ba ca garabu paran gu mag ga ca wetu màndig ma ñu jóge fa nag wàññiku dem en mispat di kades ba tey daldi teg mbooleem réewu amale gën ña tànk boole ca song amoreen ña dëkk asason tamar noonu buuru sodom génn mook buuru gomor ak buuru atma ak buuru seboyim ak buuru bela di sowar ba tey ñoom ñépp daldi lang nara xare ca xuru sidim di sot ñoom kedor lamer buuru elam ak tideyal buuru goyim ak amrafel buuru sineyaar ak ariyok buuru elesaar ñeenti buur di xarek juróom waaye xuru sidim woowu dafa feesoon dell ak i pax ak i kàmbi koltaar ba mu ko defee buuri sodom ak gomor di daw far daanu ca kàmb ya ña ca des daw ba ca tund ya ña leen dàq nag jël alalu sodom ak gomor yépp nanguwaale seen dund bépp boole ca daldi dem seen yoon booba lañu yóbbu lóot ma dëkk sodom te ibraam di baayam bu ndaw ci biir loolu ñu yóbbaale li mu amoon lépp dem ba loolu xewee kenn ci ñi jàppoon rëcc ñëw ci ibraam mii ab hébreu wax ko ko fekk na mu dëkk ca wetu garab yu mag yawoon ca toolu Mamre ma dib Amoreen di mbokk mu jege ci Eskol ak Aner ñoom ñi doon wëlëre ibraam ba Ibrahim déggee ne jàpp nañu Lóot ma muy baayam bu ndaw fa saasa daa dajale dagam yi juddoo këram te toll ci ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñu dàq buur ya ba dëkk ba ñuy wax daan noonu ibraham xàjjale mbooloom dal ci kaw buur ya guddi dàq leen topp ci ñoom ba koba ca bëj gànnaaru Damas Ibrahima nag delloo si alal ja jépp nangu mook alalam ak jigéen ña ak ñeneen ña ñu jàppoon melkisedek ñaanal na ibraan barke gannaaw ba ibraam dàqee kedoor lameer ak buur ya àndoon ak moom ba dellusi buur sodom dafa génn gàttandu ko ca xur wa ñuy wax sawe ñu di ko wooye xuru buur ba tey ci kaw loolu melkisedek buuru salem mi doon saraxalkatu yàlla aji kawe ji daldi ñëw indi mburu ak biiñ noonu mu ñaanal ibraam ne ko yow ibraam yàlla na la yàlla aji kawe ji barkeel moom mi sàkk asamaan ak suuf waaye jaaraamaa yàlla aji kawe ji moom mi la dumaal say noon ba loolu amee ibraam sàkk fukkeelu lamu la lépp jox ko gannaaw loolu buuru Sodom wax ibraam ne ko jox ma nit ñi nga jàpp te nga fab alal ji waaye Ibrahima wax buuru Sodom ne ko man yëkkati naa sama loxo yàlla aji sax ju kaw a ji seede moom mi sàkk asamaan ak suuf nee naa duma jël ci yow dara du puso bi gën a tuut sax su ko defee doo mën a wax ne yaa ma tax a am alal duma jël dara lu weesu li sama nit ñi lekk ba noppi ak sama wàllu farandoo yi di aneer ak eskol ak mamre ñoom it nañu jot seen wàll. saar fukk juróom. yàlla fas na ak Ibrahim kóllëre gannaaw ba loolu wéye kàddug aji sax ji dikke na Ibrahim wax jii ci peeñu mu ne ko yow ibraam bul ragal dara man maay sa kiiraay te sa yool dina màgg lool Ibrahim ne ko borom bi yow aji sax ji ana loo may may nag man awma doom sax te ki war a donn sama alal moo di eliyeseer mii waa damas ibraam teg ca ne mayow ma giir te it jaam bu juddoo sama kër moo may donn noonu kàddug aji sax ji dikke ko wax ji mu ne ko du moom moo lay donn waaye ku sosoo ci sa geño moo lay donn loolu weesu aji sax ji yóbbu ko ci biti ne ko xoolal asamaan te wàññi biddiw yi ndegam man nga ko mu dellu ne ko noonu la sa askan di toll ibraam nag gëm na aji sax ji ba tax aji sax ji àtte ne jub na gannaaw loolu aji sax ji wax ko ne ko man maay aji sax ji la génnee ur ga ca kaldeen ña ngir may la réew mii nga moom ko waaye Ibrahim né ko yow aji sax ji sama boroom nan la may wóore ne maa koy moom aji sax ji ne ko jëlal wàllu ñetti at ak bëyu ñetti at ak ku yu ñetti at boole ci pitaxu àll ak xati mu ndaw noonu ibraam boole yooyu yépp rey lu ci nekk mu dagg ko ci digg bi dog bu nekk janoog moroom ma waaye daggul picc ya ba ko defee ay tan jóge ca dal ca kaw yàpp wa waaye ibraam dàq leen ba jant bay so ngëment lu rée ko jàpp tiitaange ju mag ànd ak lëndëm gu ne këruus ne milip ci kawam aji sax ci wax ibraam ne ko déglul bu baax li ma lay wax sa askan dinañu nekk ay doxandéem ci réew mu ñu moomul ñu def leen leeni jaam sonal leen diirub ñeenti téeméeri at waaye waa réew moomu leen di defi jaam dinaa leen àtte gannaaw loolu sa askan dina ca génn ànd ak alal ju bare yow nag dinga gudd fan lool door a nelaw ñu denc la nga fekk say maam ci jàmm say sët sëtaat tey dellu fii bu seen jamono jotee ndaxte bàkkaaru amoren ñi jéggeegul dayoo ba jant sowee ba guddi jot njaq luy saxar ànd ak jum buy tàkk daldi jaar ci diggante dogu yàpp yooyu keroog aji sax ji fas na kóllëre digganteem ak Ibrahim né ko ñi soqi ko ci yow laa jox réew mi dale ci dexu misra ba ca dex gu mag googee di efraat mooy réewu keneen ñi ak keniseen ñi ak katmoneen ñi ak iteen ñi ak periseen ñi ak refeen ñi boole ci réewu amureen ñi ak kananeen ñi ak girgaseen ñi ak yebuseen ñi saar fukk juddu na saray amul woon doom ak boroom këram ibraam waaye fekk na mu am jaam bu juddoo misra te tudd ajara saray ne ibraam li am mooy aji sax ji deful ma am doom kon ngalawaay dëkkuwal sama jaam bi ndax yàlla def mu amal ma doom ju góor ibraam nag dégg la sara yi wax looloo ngi am gannaaw ba ibraam dëkkee fukki at ca réewu kanaan sara yi daldi jël ajara jaamam bi juddoo misra jox ko jëkkëram ibraam ngir mu dëkkoo ko loolu weesu ibraam dëkkoo ajara mu daldi ëmb ajara yëg ne ëmb na indi nag yabeel digganteem ak sangam yi noonu yi wax ibraam ne ko tooñ gi ma ajara di tooñ yaa ma ko yóbbe maa la jox sama jaam ngir nga dëkkoo ko naam waaye moom naka la yëg ne ëmm na rekk daldi indi yabel sama digganteeg moom kon yàlla na ma aji sax ji àtteeg yow ibraam wax yi ne ko sa jaama ngoog ci say loxo def ko lu la neex yi nag di toroxal ajara ba mu daw ba sore ak moom ba mu dawee malaakam aji sax ja gis ko fu dendaku bëtu ndox ca màndig ma mooy bëtu ndox ba ca yoonu sur mu ne ko yow ajara jaamu saray bi foo bàyyi ko nii ak foo jëm mu ne ko damay daw ba fu soreek sama sang saray malaakam aji sax ja ne ko dellul ca sa sang te nga yem ci loxoom mu teg ca ne ko dinaa yokk sa askan lool ba kenn du leen mën a wàññi tegaat ca ne ko léegi jigéen wérul nga te dinga am doom ju góor nanga ko tudde Ismayla loolu di tekki yàlla dégg na ndax aji sax ji yëg na sa naqar Ismaylaay tiiñe ni mbaam sëf mu deesul not di noonoo ñépp ñépp noonoo ko mooy sanc fu muy jàkkaarloo ki bokkam yépp ajara nag tudde aji sax ji wax ak moom ata roy loolu di tekki yaa di yàlla jiy gis ndaxte dane moo man moo na gis naa yàlla moom it mu gisal ma boppam de loolu moo tax ñu tuddee teen booba teenu laxay roy loolu di tekki teenu aji dund ji may gis mu nga nekk diggante kades ak bered ba loolu weesoo ajara amal ibrahim doom ju góor ibrahim tudde doom ji ismay la ba ajaray am la ibrahim a ngi tollu woon ci juróom-ñett at ak juróom benn saar fukk ak yàlla soppi na turu ibrahim ba ibrahim amee juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent am na bés aji sax ji feeñu ko ne ko man maay yàlla aji man ji topp ma te mat sëkk dinaa feddali sama kóllëre ak yow yokk la bu baax ibraam dégg loola daldi sujjóot yàlla wax ak moom ne ko man ci sama wàllu bopp kóllëre gi ma fas ak yow mooy lii dinga nekk maamu xeet yu baree bare te tuddatuloo ibraam léegi yaa di Ibrahima loolu di tekki maamu ñu bare ndax def naa la ngay maamu xeet yu bare bare dinaa la defal njaboot gu ne xas ay xeet sosoo ci yow ba ay buur soxi ko ci yow te dinaa feddali sama kóllëre gi ci sama diggante ak yow yàq sa askan muy kóllëre guy sax maasoo maas ba faw dinaa doon sa yàlla yàq sa askan te réew mi nga doon ab doxandéem léegi muy réewu kanaan mépp jox naa la ko yaag sa askan ngeen moom ko faw te dinaa doon seen yàlla xaraf màndargaal na kóllëreg yàlla gannaaw loolu yàlla waxaat na Ibrahima ne ko yow nag sàmmal sama kóllëre yaag sa askan ak say sët ak say sëtaat kóllëre gi ma fas ak yow te nga war koo sàmm yàq sa askan li mu laaj mooy lii góor gu nekk ci yéen war na xaraf xaraf mooy màndargaal kóllëre googu ma fas ak yéen xale bu góor bu am juróom-ñetti fan war naa xaraf muy jaam bu juddoo sa kër mbaa ku ñu jënd ci sa xaalis te bokkul ci sa xeet jaam bu juddoo sa kër ak boo jënd ñoom ñaar ñépp des leen war a xarafal xarafay màndargaal sama kóllëre ci seen yaram muy kóllëre gu sax faw góor gu xaraful ndax nanguwula xaraf des na ko beddee ci biir xeetam génne ko ndax sàmmul sama kóllëre ba loolu weesoo yàlla waxaat na Ibrahima ne ko sa soxna tuddatul sara yi léegi moo di saarata dinaa ko barkeel may la ak moom doom ju góor dinaa ko barkeel moos ba mu jaboote xeet yu bare te ay buuri xeet sax dinañu soqi ko ci moom bi Ibrahima déggee loolu daa sujjóot ree booba ma nga naan ci xelam góoru téeméeri at ndax dina mën a am doom waay te saarata mi am juróom-ñeent fukki at sax mënati naa am dooma Ibrahima na yàlla moo tee nga saxal Ismaayla rekk te ànd ak moom yàlla ne ko waaw waaye du tere sa soxna saarata amal la doom ju góor nga tudde ko nag isaaxa dinaa fas ak moom sama kóllëre mu wéy ba ciy sëtam ba faw bu dee ci wàllu la nangul naa la ba tey ndax kat dinaa ko barkeel jox ko njaboot gu yaa yokk ko bu baax dina jur fukki kilifa ak ñaar yu mag te dinaa ko defal mu sos xeetu yaa waaye sama kóllëre nag isaaxa laa koy fasanteel moom isaaxa mi saarata di am na gëni déwén loola la yàlla wax ibrahima daldi fay bàyyi ko noonu ibrahima boole doomam ismaila ak jaam yi juddoo këram yépp ak ñi mu jëndoon ci xaalisam ñépp ñuy góori waa këram ñépp xarafal leen ca bés ba muy la ko yàlla waxoon Ibrahima amoon na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent bi muy xaraf doomam la am fukki at ak ñett bi ñu koy xarafal bésub keroog la Ibrahima xaraf moom ak doomam la ak mbooleem góori këram muy jaam ya fa juddoo mbaa mu jënd ci ay doxandéem ñoom ñépp a moom xaraf saar fukk ak ganam ña am na bés aji sax ji feeñu ibrahima ca garabi mamre yu mag ya booba ma nga toogoon ca buntu xaymaam diggu njolloor naka la gi gis ñetti nit ñu ne jimet ci kanamam ibrahima gaawtu gàttandu leen sujootal leen mu daldi ne sang bi siyaare naa la ngelawaay bu ma romb xaar leen ñu indil leen tuuti ndox ngeen jàngu te noppalu ci kër garab gi maa ngi leen di indil dogu mburu mu ngeen dëgërloo ba mën a topp seen yoon gannaaw nangu ngeen a toog ma siyaare leen ñu ne ko waaw baax na Ibrahima daldi gaaw dugg biir xayma ba ne Saarata gaawal jël ñetti ndabi sunguf su nooy not ko def ko mburu yu ndaw Ibrahima nag daw ca gétt ga sàkk fa sëluwu duuf te baax ñëw jox ko jaamam mu gaaw togg ko noonu Ibrahima taajal leen ndawal lañu togg ba mu sotti indaale leen soow ak meew mu bees ma nga taxaw ca seen wet ca ker garab ga ñuy lekk ñu daldi ko laaj ne ko ana sa soxna sareta mu ne leen mu ngi ci biir kooka ne ko naga sii déwén dey dinaa fi dellusiwaat siwaat te sa soxna saarata dina am doom ju góor moos bi muy wax loolu saarataa ngi ci buntu xayma bi ci ginnaawam di déglu booba fekk na Ibrahima ak saarata doon mag ba màggat lool sax te saarata weesu njurum doom noonu saarata ree ci suuf te naan man mu ñor xomm mii ndax mën naa amati boobu bànneex te sama boroom kërit di mag aji sax ji daldi wax Ibrahima ne ko lu saarata di ree te naan man mu màggat mii deeti naa am doom moos ndax am na dara lu të aji sax ji bu ñu ca àggee nëgëni déwén dinaa fi dellusiwaat te saarata dina am doom ju góor saarata dégg loolu daldi tiit miim ko ne reetaanuma de waaye aji sax ji ne ko ree nga kay ibrahima tinul na waa sodom gannaaw loolu gan ña jóge foofa tiim sodom di ko séentu ibrahima ànd ak ñoom di leen gunge booba aji sax jaa ngi wax naan xanaa du ma nëbb Ibrahima li ma nar ndax kat Ibrahima dina sos xeet wu mag te am doole te xeeti àddina yépp di taasu ci barkeem moo tax ma tànn ko ngir mu sant ay doomam ak waa këram ñuy déggal aji sax ji di jëfe yoon ak njub noonu laay defale Ibrahima li ma ko digoon aji sax ji nag àddu ne bàkkaari sodom ak gomor bare na lool ba may dégg yuux yi sababoo ci seen moy dinaa wàcc seede ko ba mu wóor ne ñoo def lépp li sabab yuux yi am déet gan ña nag dem jublu sodom waaye Ibrahima taxaw ba tey fi kanam aji sax ji naka la Ibrahima jegeñ si ne ko mbaa doo boole ku jub ak ku juba di rey leen su juróom fukk rekk jubee ca dëkk ba mbaa doo tas dëkk bi ba tey te leen a jéggal rekk ngir juróom fukk ñu jub ña ca nekk rikk bul yemale ku jub ak ku juba jubadi ba boole leen rey loolu jomb na la moos yow mi àtte àddina sépp kay lu jub rekk ngay def aji sax ji ne ko su ma gisee ci sodom juróom fukk ñu jub dinaa jéggal waa dëkk bi yépp ngir ñoom Ibrahima dellu ne ma ñemee wax ak yow borom bi te duma dara ba dara booloo jeex waaye juróom fukk ñooñu jub su yéesee juróom rekk nag mbaa doo tas dëkk bi ndax juróom ñi ci yées aji sax ji ne ko su ma fa gisee ñeen fukk ak juróom ñu jub duma ko tas Ibrahima dellu wax ne su ñeent fukk ñu jub rekk amee nag aji sax ji ne ko duma def dara ngir ñeent fukk ñooñu Ibrahima dellooti ne rikk borom bi bu ma meree dinaa ci teg lii su fa fanweer ñu jub rekk amee nag aji sax ji ne ko su fanweer ñu jub amee kon duma def dara Ibrahima neeti léegi ma ñemeeti wax ak yow boog borom bi suñu doon ñaar fukk rekk nag aji sax ji ne ko kon duma ko tas ngir ñaar fukk ñooñu Ibrahima dellu neeti ngal la borom bi bul mer ma wax bi yoon rekk te noppi léegi suñu dee fukk dong nag aji sax ji ne ko kon duma tas dëkk bi ndax fukk ñooñu jub loolu la aji sax ji wax ak Ibrahima daldi dëddu Ibrahima ñibbi këram. saar fukk waa Sodom. ba loolu amee ñaari malaaka ya dikk Sodom ca ngoon fekk Lóot toog ca buntu dëkk ba. loot seen leen jóg gàttandu leen daldi leen sujootal ne leen. déglu leen ma ngala sang yi siyaare naa leen tee ngeen a dal ak man su ko defee ngeen jàngu fanaan ba suba ngeen xëy topp seen yoon waaye ñu ne ko bàyyil nu fanaan ci mbedd mi loot nag soññi leen ba ñu dal këram mu ganale leen loot da leen berndeel lakkal leen mburu mu amul lawiir ñu lekk waaye ba lañoo tëdd góori sodom mag ak ndaw daldi jóge gox bu nekk ñëw yeewu kër ga ñu daldi woo lóot ne ko ana góor ñi fi ñëw tey ci guddi génneel nu leen fi ndax nu mën a àgg ci ñoom loot génn fekk leen ca buntu kër ga ca biti daldi tëj bunt ba noonu mu ne leen bokk yi ngalla leen def lu bon loolu waay déglu leen ma wax leen man am naa ñaari doom yu jigéen te xamuñu góor may leen ma ma yot leen leen ngeen def leen lu leen neex rikk bu leen def góor ñii dara ndaxte samay gan lañu ñu ne ko toppal fale te naan waaye waa ji dal ci sunu dëkk bi rekk bëgg di fi àtte léegi nag dinañu la def lu raw li nu bëggoon a def say gan ñu song loot ba nar a dajji bunt ba waaye gan ña yoor seeni loxo ñoddi lóot ba ci biir tëj bunt ba ba loolu amee ñu gumbaal nit ña nekkoon ca buntu kër ga mag ak ndaw ñuy làmbatu bunt ba ba sonn bàyyi loot génn na sodom ba loolu wéyee gan ña wax loot ne ko boo amee mbokk ci dëkk bi muy sa doom ju góor mbaa ju jigéen mbaa kuy denc sa doom koo fi am génne ko fi ndax dinañu ko tas de aji sax ji dégg na jooytu yu rëy yi niti dëkk bi sabab ba tax mu yónni nu ngir nu tas si ko loot daldi génn wax ak goroom yenn naroon takk ay doomam yu jigéen ne leen gaaw génn dëkk bi ndaxte aji sax ji dina ko tas waaye ñu defe ne day kaf fajara ngay xar malaaka ye fuug lóot ne ko gaawal gaaw ànd ak sa soxna ak sa ñaari doom yu jigéen yii ba bu yàlla tasee dëkk bi du ngeen sànku lóot di tendeefal gan na jàpp ci loxo bi booleek soxnaam ak ñaari doomam génne làq leen ca gannaaw dëkk ba ndax yërmande ju aji sax ji am ci lóot ba ñu leen génnee kenn ci ñoom ne Lóot dawal sa xelu bakkan bul geestu bul taxaw fenn ci joor gi dawal ca tund ya bala ngaa dee waaye Lóot ne ko déet sang bi defal nga ma yiw yërëm ma lool ba musal ma waaye bala ma daw ba àgg ca tund ya musiba mii mën na dal ci sama kaw ma dee gisuloo dëkk bale jege na te dëkk bu tuut la am déet ma daw làqu ji fa bokk ba mucc malaaka ma ne ko waaw baax na ba tey duma tas dëkk boobu ngay wax nanga gaaw nag làqu ji fa ndax duma mën a def dara te àgguloo ca loolu moo tax ñu tudde dëkk boobu sawar loolu di tekki bu tuut yàlla tas na dëkk yooyu di sodom ak gomoor ba jant bay fenk loot dugg na sawar noonu aji sax ji yuree ca asamaan tamarax buy tàkk muy taw ci kaw sodom ak gomor na ko aji sax ji dogale mu daldi tas mbooleem dëkki joor ga boole ca nit ña ak gàncax gépp waaye naka la soxna lóot ne gees jëmm ja far soppaliku xorom ca ëllëg sa Ibrahima dafa teel a jóg dem fa mu taxawoon jàkkaarloog aji sax ji naka la séentu sodom ak gomor ak joor ga ba fa mu yem gis nag saxaar suy gillee ci suuf mel ni saxaaru taalu ban ndaxam bi yàllay tas dëkki joor ga xalaat na ibraayima ba mu sël loot ca dogalam boobee keroog ba mu tasee dëkk ya lóot daloon mbirum lóot ak doomam yu jigéen ya gannaaw loolu lóot dafa ragala dëkk sowar ba ànd ak ñaari doomam yu jigéen sanc ca tund ya mu dëkk ca xuntim xeer moom ak ñaari doomam yu jigéen mu am bés taaw bi wax rakk ji ne ko sunu baay a ngi màggat te fii fépp amul góor gu nu mën a séqal ci wàllu sëy ni ko waa àddina yépp baaxoo defe kon nanu def nii danuy nàndal sunu baay biiñ tëdd ak moom ngir sunu xeetu baay du fey ca guddi ga ñu nàndal seen baay biiñ taaw ba dugg tëdd ak baayam te loot yégul ba fa doom jey tëdd ak ba muy jóg ca ëllëg sa taaw ba wax rakk ji ne ko man tëdd naa ak sama baay biig guddi teyit danu koy nandalaat biiñ su ko defee nga dugg tëdd ak moom ndax sunu xeetu baay du fey guddi jot ñu nàndalaat seen baay biiñ rakk ja dem tëdd ak baayam te loot yégul ba fa doom jay tëdd ak ba muy jóg noonu la ñaari doomi loot def ak seen baay daldi cay doxe ëmb taaw ba am ca doom ju góor tudde ko mowaab loolu di tekki jóge ci baay mowaab moo sos mowaabeen ñi rakk ja moom it am doom ju góor tudde ko benami loolu di tekki sama doomu mbokk benami moo sos ne ñi fi nekk ba tey